waaw ki ne waaw soo duggee ma ndox bu sedd waay waaye maa ngi fi maa ngi fi rek yow ki ne moom ah temps yi de ay wan tooñ tooñu ma la xam nga ne dëgg laa eh. sa waay ki ne namul dara man mii maa namul dara yow loo loo ko wax. sa waay jël xamoo sa waay jël ñëw fii sa waaw sa waay jël. ma ne sa waay loo ko wax nga ñëw fee di ma jéem a fenal. lan laa ko wax. xam nga loo ko wax. lan laa ko loo ko wax. ah man kay xaw ma looy wax nii. man man ay man maa dem si xaw ma yow yaa dem xaw ma man maa ko lool. Modou Fall. waaw non man mooru Fall daf maa woor rek ñu waxtaan man ma nag gëj naa la gis man ko man damaa voyagé woon. man dama demoon Cameroun kañ nga ma gëj a gis. Eh, eh, xoolal wax la man fulak fer fulak fer laay wax ak yow. loo fa wax la bëgg a xam saa expliqué mu ne waxuma ko dara lu mu la wax dama kaa wax Modou Fall waxuma ko dara dama dem moom maag moom ñoo doon waxtaan mu ne ma yow yaa ko jox sama numéro ma ne ko man Malick sama waa la ko jox sa numéro ñetti numéro yëpp ni ma ko waxee noonu laa ko defee kon loo fay ko bëggee kaaja mënu nga jaareele neneen pas di ma fenal loolu fay fenal xam lii moom indi suñu problème fi ne lay jugee nga bàyyi sa yii lan la eh, siggil xool ma waaw ah, maa xool maa lay xool te sa waay sa moom xoolal dina ñëw par lu mu ko wax na ma ko bàyyi ba sa waay ñëw rek. foog yaa moom loolu neex ngay wax. keroog am na kii la nekkoon di yàq sa der. rek kii la nekkoon di yàq sa. Bal Ahmed. Ah? yes Bal Ahmed. ah mais eh, soo. la gën a naka mu maam. Ah? nice ni Bal Ahmed. Ahmed Mbow. nice. Ahmed Mbow. ah Ahmed da nii.

non laaj ko mu ngi nii man ma yaakaar seen diggante yéen ñaar arrangé woon naa ko ba mu nekk yoon man maa ko jàpp def ko nit waaw ah, mais da nga koy jàpp rek ngir man amul non non parce que déjà maa ngi wax moom mu commencé ak sa der ah moom man kay dégg naa Ameth ma jaaxal bi ma yegg see Ameth ah, en partant man Ameth Mbow laay wax Ameth Mbow moom xam na Ameth Mbow seen aw ma Ameth Mbow de Mbow aw ma ko Ameth bii laa xam waxuma Ameth bi yaa fa jaarale Mbow bi rek ah man kay bu may dégg bu may ñëw moom dégg naa Ameth quoi da joxe loxo mu ne Mbow xam na la ko fentee na ba ne mbëgu ah gars yooyu nag gars yi instant yaakaar nga ma yow man defar naa ko ba mun naa yow yow amatul benn plaignant non doon defar mun naa amatul benn plaignant mais moom moo ko yàq lan la may dem fee di ma fenaan toogal ko dil bu neex mooy fenaan mais nag kii koy comprendre suñu kii sa gars yi la mais man gars yi ma woo ma woo ma ñëw mu may ma xaalis xam ne ma Malick moo ma jox sa numéro ma ne ko waaw laajoon na ma ko ba ma jox ko numéro ma ne ko Malick sama waay la mu ne ma ah ma ne waaw ma ne ko amul problème kontaan naa trop mu ne ma après dinaa la woo dafa am lu may lijjanti ma ne ko amul problème man de lool laa fa wax. waxoo fa loolu après ma wàcc mu déposé ma. Ah, ah, waxoo fa loolu. am luy problème xam nga gaayen bii nii Pékin moom dafa mën a wax wax bi xam nga ci dara man doo doo doo daan si kanam. baax a baax. non sama copain moom dafa feebar quoi. mais da nga koy muñal rek. non du ma ko muñal mooy maanaam chaque jour yi man yow laa siy xool. mais xool ma si la rus ma si quoi yow sama gaayen nga quoi. Ah, maa ngi jégalu quoi. dama ko noroon jam pont. non bu ko jam bàyyi. maa ngi jégalu maa ngi jégalu. pont laa noroon yore. ah bu ma jam bu ma jam waxuma ak yow kii laay wax. Ah, dama koy dama lay expliqué bu ma jam ma jëm yaa comprendre. Ah. waaw war nga wax ak moom. non man kay si wax ak moom laa dëkk mais gars yi. xam nga ne keroog seen néeg moom moo fay location bi xaw ma daal. Hmm. ah. Eh, Ya, loolu laa wax ma ne la sa waay keroog sama néeg ba ma amee problème moom moo ma lebal quarante ma fay ah, location. bu fi toogee. ah bu mu fi toogee. ah mais gaañ kii daal sama gaañ la mais garaawul Malick. ah bu mu fi toogee miin nañ ko quoi miin nañ ko da nga koy boole si askan bi rek sinon moom. boo boo eh, balaa xam na moom gën mel da ngay wax ak moom muy jéem buddu tuñ di sànni kanam gi fee. Ah, kanam bu ñaaw bi. zéro ko rek mais gaañ alors. pare. du la tontu nice ça va bien du la tontu oto si laa ko jàpp. non garaaw garaaw garaaw. mais bu relax booy relax. waaw garaaw amul problème amul problème amul problème taw jubul bàyyil mu sedd. seen soxla rek. relax quoi. jaajëf jaaraama. man moom miin naa la quoi man loo wax si man moom. dama lay boot man moom miinu ko quoi man moom miinu ko quoi moom sans direct laay boor bu dund ak moom quoi wax dëgg. mais jégal ko rek garaaw. mais jégal chaque jour muy ni ma problème chaque jour di ma fenal chaque jour chaque jour. yow nag ñaata yoon laa la fenal benn yoon rek laa la mos a fenal. li ngay wax lépp benn yoon mosuma la fenal ñaari yoon benn yoon ak ban benn yoon boobu moom nangu na man maa man maa la yàqoon sa der mais mosuma la fenalaat benn yoon naa la fenal. mais boobu moom metti na. waaw mais boobu passé woon na. ba kii lijjanti loo ba kii lijjanti ko benn yoon. amet amet benn yoon laa ko mos a fenal fu ma nee man maa moom moto bi man maa koy jox bu may dawal ay course boobu tamit maa ko fenaloon waaw mais ñaari fen-fen yooyu rek waaw. waaw ñaari fen fen nga foog ne loolu la. ah loolu la ñaari fen ñaari fen ñaari fen bu ñuy bu ñu demee bay bind bàkkaar dañu naan c'est deux après dañ ko tëb bàyyi ko bàyyi ba mu mot dix par dix la ñuy bind. yaa ngi nax sa bopp hmm. par dix na li ñu koy bindee. fen kay benn fen la rek. Ah. fen benn fen moom benn bàkkaar la fen rek bàkkaar non non par dix la ñuy bind parce que benn fen mën nañ la jéggal ñaar ñu jéggal la ba neuf neuf et demi sax dañ lay jéggal dix rek la ñu bind. dix rek par dix la ñuy bind maa ngi jégalu de. waaw waxal ak sa copain kii yaa mën a moom jégalu jégalu moom jégalu moom du jeex waa jégalu day jeex. non waxal ak sa copain kii yaa mun wax ak moom kii man mënuma wax ak moom. ah non mais yërëm ko rek Malick. non si kii man mënuma wax ak moom doo ànd ak moom de. waaw comprendre doo ànd ak moom chaque jour comprendre chaque jour chaque jour même rythme. loolu doo koy tax nga mën a ànd ak moom. chaque jour am na ah. oto bi laa doon hmm. ah bii laa ko loué quoi. waaw. oto bi. foo ko loué. ah kii naar bi. ah ok daa gis ñu koy dawal. waaw maa leen ko maa koy loué quoi. Hmm. waaw journée vingt cinq mille. ah kon tey kay war nga am xaalis kan kay yow léegi war a soo am ak Malick Fale ñaar. journée vingt cinq mille. kii de yow. mais xam nga boobu noonu xam nga boobu kii ma kii bor boobu noonu ba léegi. Hmm. mu ngi si ndoddam bi. kii fayu la ko. non man joxaan naa xanaa da koy raadaat beneen. pelle ñaar kon kay amal ko beneen bor. amal ma ko beneen ah, bor fen bi fee. waaw ñu jox la fee nga fenal ma. amul problème xam nga na ku xaar sa atelier. yow bul lijjanti yow nañu lijjanti sama problème xam nga kii moom la. bu ñu la jéggaloo nga jéggalu baal ma. waaye <laughs> nag moom moom yii nii. sol moom. yii nii. lan laa la wax. Ah. dama la ne am naa comme daal yi ñu ngi suñu kër teg teg. da ne ma naa ko la ah non non non ba loolu nag maa dama la ne maa lan laa la wax. maa am naa comme daal yi ñu ngi kër loolu laa la ne ma daal yaa ko moom. non yii jotuma. yi jotuma yi 31 la. waaw loolu ma jaaxal ko. yi jotuma kon moom boo ko moomoon moom dina ma jaaxal. yi jotuma am naa ji xam nga yow luy sa problème yow. da ngay wax di wax fii. ah maanaam bëri laa daal maa ngi jégalu du amati du amati léegi garaawul sax man naa dellu koñ bi ma doon fréquenté di fa fréquenté. foofu foofu da ngay dégg jàmm foofu da ngay toog nii xam nga ay booy yu tooy booy di waxtaan ak booy yi xam booy pour ñu mën Europe laa jóge ci ñoom Europe laa yu ne sama papa bi ay xànj la noonu rek naa ne sama papa am na 40 mais nag naa la xamante ne léegi dafata ñu ne yooyu xam ka la ñu gëm réellement gentleman yoo xam ne ñuy xëy di dem dóor ji waar mais sama papa moom sama papa yooyu fi jeex ay turu kii la rek ay dóor la rek dóor boobu nga war a tegee fee parce que bés bu kalaatee après fenkat dañ lay jàppee te yow yaa ngi commencé nekk bàyyi nga fen yenn fen léegi yaa ngi commencé nekk. waaw ah, loolu la nag jamono jamono day soppeeku. bu soppeeku da ngay da ngay soppeeku ànd ak ah, moom ah, nag fen moom ku si dëkk rek moom. waaw ah xam nga lu ñu wax ci fen. lan la ñuy wax ci fen. bëgg nga leeral ma. waaw comme xam nga lu ñu wax kan moo koy def. ah loolu fa sama papa moom moom loolu xaanj la. waaw fen la sa cadre fen la bokk. non yéen da ngeen jaawale fen ak xaanj xam nga lan mooy fen fen mooy sos. Oh, mais boobu noonu sos la loo xam ne moomu fen la mooy fen mooy nga wax nii fen mooy nga jaxase ñaar nit loolu fen la loolu si cadre fen la bokk mais li nga wax tam si cadre fen la bokk moo gën a bon waaw léegi c'est bon nañ bàyyi noonu gars yi amul problème waaw nañ bàyyi noonu nañ bàyyi noonu Malick daal moo baax si sama waa ji quoi. non kii non sama gaañ ma ci fekk fekku nga yow di nga. yow bu ñu man ak yow dama ber man kese man garaawul Baye Fall la mën naa la déglu quoi mais Malick. da ko wax lu leer quoi Baye Fall. Fall Niang réyaalu laa. réyal laa te nante laa dëkk si temps bi eh, loolu laay dund de Fall bi ah. ah. ma ne réyal laa te ah, laa dëkk moo lay defar affaire yaa ngi gaarawaale mu xam nga ni Mouhamed dëkk booy town dëkkul si town bi. non non yow xam nga ne kii campement ngee xoox la dëkk. léegi waaw non non non non loolu lay wax. non bu toogee. ne ma yow moom booy town la moom xam na ne man booy town la léegi moom xam na ne yow dëkkoo town la da ngaa paas ñëw. damay paas ñëw de damay paas dellu. copain kii dañuy jaxase. ah dama ko expliqué dama ne ko man réel la gentleman la booy town la. léegi kan moo dul booy town. waaw non xam nga dama ne xam nga ne Malick Malick campement la dëkk campement ngee xoox waaw Malick pourquoi pas le mot campement ngee xoox loolu laa bëgg nga décortiquer ma ban idée ngeen am ak kan moo xalaat boobu kam maa ngee xoox non boo ci xamul dara kay man mën ma cee xam kam maa ngee xoox moom dama koy dégg rek yoonu mbuur la nekk non fa foo dëkk man Thiès laa dëkk Thiès man booy Thiès laa laaj laaj boo bëggee xam booy Thiès laaj ko Abdou Diouf Abdou Diouf ban Abdou Diouf ngay laaj nan ñooy booy Thiès Thiès mel na fii Thiès laajal Abdou Diouf kan nan ñooy booy Thiès xoola da koy dëri Seck Thiès Thiès ñooy Thiès xam nga luy li lay raisonné. kees boo bëggee déglu ko rek déglu ko rek. déglu ko lan benn dëkk ñaari gaay waaw foofu nga dëkk. foofu fan nga dëkk ci Thiès entre parenthèse. foo dëkk ci Thiès. man ay Nina Fall laa dëkk. ay ay Nina Fall si plateau ba. ah yow nga dégg Medina Fall rek créé ay Nina Fall ay Nina Fall da maa ngi koy soog a dégg ay Nina Fall ak Medina Fall bokkul de ay Nina Fall mu ngi ci ginnaaw mairie Thiès Medina Fall moo nekk si sotti Tivaouane bi man ci plateau bi centrale ville bi laa juddoo fa laa yaroo. Jaxaw fu mu ne. jaxaaw mooy koñu ñoom Sanex. fan laa dëkk. yow mi waaw. Ah. da wax waxuma fi woon angal mën la nga dëkk xam. damaa juum benn na rek angal moom la waxoon gis nga moom ah. pour ñu muy toogal ay dof lañ. non yow nag dama lay dama lay commencé. ba la waxee loolu yàgg na mu foog da nga koy fàtte rek. non fàtte fii lu ñu loolu wax dañ koy enregistré ah mais yow gars say bi wax moom jarul dóor so doom quoi. kii yaa ko jàpp kii yaa ko jàpp. ah sama gars takkandeeram laa xool mu naa ma ay nii. kay ah xanaa nag ñeenti bët nga am bu ma joomil de foo ma gisee léegi. sa verre yi laa ma ne ko Malick seen verre yi dafa nduroo. kon dèjà mu la doon si yi benn waaw nuroo nañ de. ah ndax léegi da doon jëw gan. ma la doon joobee. non dama lay joobe mu ma ay. yéen xam ngeen lu si jëw. xam nga lan la ñu wax si jëw boo jëwee nit wax nit dara ci ginnaawam yaa ngi koy lekk yaa koy yaasa di ko coob te loolu baaxul jëw baaxul yàlla bëggul jëw sant jëw suñu kanam nga jëwee ah suñu kanam waaw jëw ni ci ginnaaw am nga jëw ni ci kanam du jëw jëw ni ci kanam yow lan laay toog nga may joobe naan damay foo rek kon sa way kon manam wala sama gaay nga ñu bàyyi lolou damay takk jabar xam nga la bëgg nga defal ma lalu ki quoi lalu 5 palaas pour man sama jabar ak sama ñet doom yi may am mën na mais sa yow dëgër la nga xam. non waaye bu ñu sa gel. Ah, ah, moom nee na nee na quatre jabar lay takkandoo. mos na la présenté gelam. non non non. mais moom nee na quatre jabar lay takkandoo sànq la ma doon wax noonu. ah nee nga quatre jabar ngay takkandoo. man ah, yàggatul dara yàggatul dara. ah bàyyi si biir damay xaar koor gi ma def xew bu yi baax na la ah bàyyi yooyu nag waaye yow tamit. ah dañuy laajte quatre jabar moom koy takk wala kii bi ngay kikiri kii bi ngay naan. non ah. damay bàyyi ba koor gi ma def xew bu rëy baas koñ ba koñ kenn du dégg. waaw ah, Sénégal yëpp war nañ la mën a ñëwal nag. sama sama sama sax jabar. wax ak moom sa père ñëppay ñëw. Pape Moussa day ñëw day day fay si bor ndaw tan waaw ah, ku la ndaw tan nag moom. ñeenti waaw ñeenti junni laa ko joxoon ñaar la may jox. ah yow nga jënd fa ñaata la dara si affaire ndawtal yooyu nag ñu ngi ko bëgg mais loolu ndawtan ah ndawtan nag daa bokk non non yow yaay am yéene jox ko mais comme boobu ki jox la trente mille nga bind nii nag soixante mille la ma war a jox ak yow wax nga dëgg loolu carte xaalis la moo ko pari foot yam merci moo ko pari foot yam tey moom baal na waaw ñoo far ñoo far faal kii moom jégal naa ko non système la ma jox boo toogee rek boo toogee moom rek di nga comprendre mais mais fa daal rek waaw waaw maa ngi dem waaw damay préparé xam tey dama woor ah. damay préparé ji kii bi quoi ndogu waaw damay ji ndogu bi ba kañ dama gaale nga ndogu. non garaaw jëndal nga ndogu waale. non man ah? naa wóoroo kay dama laa invité nii rek man xam naa wóor yow doo wóor bi. doo wóor xam naa ko waaw fa daale. mais la mais day xaar a dugg nga naan ma borom baax la boo bii kay dafa mën a fenn. kii kay muñ rek maa kii moom da ciy boole ci bokkul quoi. non moom chaque jour mu boole a dugg. mais mu ngi commencé wàññi ndànk waaw waaye defar bi la tar bi yow bi la defar yaa ngi koy seet dafa mën a dund wàññi ndànk ndànk mais man du ma si sonal sama bopp de xam nga mu nekk benn nit boo xam moo la ciy génn quoi xam nga am gis ne nii yenn nga tase ak moom genre dañu baax si dëkk bi ay élément lañu ñooy sarax si voilà niñ lay indilee lu bon noonu lañ lay mm-hmm. indilee lu man moo tax ma ceene ko di dund ak moom nice bi waaw maa ngi doon enjoy nu ma siy gérer boobu ba léegi. mais non da koo xam ñii dañuy information lañ indil. bul sa sonn man ak moom dañuy nekk ma noonu laay def de si wàllu bi nii. si yenn saa yi muy mu fet ma ba may bëgg mu indil ma benn affaire boo xam ne tës lay doon dama ciy dal. mais nit la rek si société bi la bokk nit la si mooy maanaam wax na ko feebaram sax wax na ko. voilà mito mito duulkat la. léegi yow boo bëggee noppal boo toogee moom buy waxee bëggee rek léegi boo paree nga jël sa tame nga toog na nga segg xool li ma yëngal gësam de hmm. dama koy seetlu buy wax buy waxee dëgg damay xool bët yi bu waxee fen damay xool bët yi. yow ki bu départ rek nga xam ne li muy wax dul la. dégg nga bàyyi voilà mi ngi noonu si mais jox na ma si seet.